ñoo leen di joxe xikma bi nag fii ci yi daaray Hikmatul mi nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 712 44 71 wala 77 633 77 56 ci ñi bëgg bind seeni doom wala ñu bëgg ay leeral ci daara ji ndax tàmbali na tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee suna yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul mu teg rek ci njàngale mu am solo moom nga xam ne nii daana ci jariñ képp ku mas a toogal bu demee ci téereb sëriñ alxaaji Mbakke ci waxi sëriñ Tuubaa yi muy dajale danañ fekk mu fay wax ne euh, sëriñ Tuubaa euh, ànd suñ borom di may lépp ci ay jagle euh, loola daf ko yokk fonk charia ak fonk sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf cay ne am na ku mas a ñëw ci Sëriñ Tuubaa ne ko man de Mbàkke dama ñàkk ndey ñàkk baay ñàkk nijaay bëgg nga doon sama ndey di sama baay di sama nijaay sëriñ mi ne ko hmm, ana loo wax mu delluwaat ci mu ne ko fere yi fi nekk ñu woo ña nekkoon ñëpp sëriñ mi ne ko waxaatal li nga waxoon mu ne ko man de Mbàkke dama ñàkk ñàkk baay ñàkk nijaay bëgg nga doon sama ndey di sama baay di sama nijaay sëriñ bi ne ko boo demee nga def ragal yàlla mooy sa ndey def jaamu yàlla mooy sa baay def liggéey mooy sa nijaay waaye yooyu jëru fee tooge eh, am na ku ñëwoon it ci moom wala ñu ñëwoon ci moom ne ko ñun di Mbàkke dañu la bëgg ba talatuñu jaamu yàlla ndax bëgguñ la bëgg sëriñ bi na leen bu ngeen demee ngeen boole ci bàyyi lekk ak naan ndax jaamu yàlla kat moo gën a diis te gën a rëy ku ko bàyyi mën a bàyyi lekk ak naan bañ demee mënuñoo bàyyi lekk ak naan ñu xam ne loola du aw lay am na it ku ma sa ñëwee ci moom ne ko man di Mbàkke dama laa bëgg wóolu la ba boo ne ma woon tàbbil ci teen bi ma tàbbi ci léegi sëriñ mi ne ko déglul sag tàbbi ci teen bi amaluma njariñ amalu njariñ li fi nekk kay mooy dafa am loo bëgg ci yàlla te nanguwoo koo jëf amoo pas-pas bu jëf ko demal jaamu ji yàlla nit lam bëgg ci yàlla jaamu ko moo ko koy may lam ragal ci yàlla wattande ko ay tere moo ko ci mësul Sëriñ Tuubaa daana wax it ma de sama gaal gi ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rek la mën a daw gaal gi ma leen dugal ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi rek la mën a daw sëñ Tuubaa suñ borom dimbala na ko ba layoon ak bindee fii te yaay na leen ndax mas naa woote ba ñépp ñëw mënu leen maa bëgg laa yow yéen de bala ñoo àgg ca penc mu mag ma dama bëgg ngeen xam ne yàgg di yàgg di fi siiwoo di def naa ngeen gis wax naa ngeen dégg bind naa yi tam bàyyi fi moo tax sëñ bay jaxate ca woyam yu am solo yi di wax ne sëriñ bi wax na bind na def na nu gis te digle ne lii moo ko war kat wàcc na mosula mooy mosula fo waxam a gën waxi ku ne jëfam a gën jëfi ku ne waaye a gën waaye ku ne waayam ji dëgg nag du fo foo gis ku neeti waayama muy foo ko nekk fa poma bul gëm ne kooka waayama waayam ji dëgg dootu fo foo gis ku neeti waayama muy foo ko mooy xumaaga ma foo gis ku neeti waaye ma weddil ndegam gis nga mu fo wurus bu yàggee wurus bu yàggee am xumaag xaalis bu yàggee am xumaag lépp lu yàgg am xumaag xumaaga fi ruuse ka fo bamba wursu sell la waayam dërëm bu sotti la te ku amub rax yaru la ab raxa bon day taxa fo xànjar lu dar dar ci wurus azal bu ko tëgg di gis xam ne dafay niru wurus ne du wurus wurus du fo wurus lu sellul bokk ca xaalis lu weexul bokk ca bàmba lu baaxul bokk ca nañ bàyyi fo jullit du fo kon loolu mooy dénkaane yi sëñ Tuubaa du génn yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo ngi soññaat sunuy mbokki jullit ak mbokki taaliba yëpp ci liggéey bi ñuy jàppale waa daara Hikmatul Yawmi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir di jaajëfal nag ñi bokk ci association bi ñëpp ak ñi nga xam ne ne weer wu ne ñu def ci seen dara ñi joxe ñeenti téeméer wala ñaari téeméer di leen xamal ne liggéey bi fii mu toll yéen ko fi aksil tax na ñuy baamuwaat na képp koo xam ne ni am am nga carte membre di joxe weer wu ne dara moo xam ñaari téeméer la moo xam ñeenti téeméer ñoo ngi sàkku nga joxe sa numéro ñu tabal la ca numéro 5 bi ndax booba loolaa ko tax a jóg muy ñi bokk ci liggéey bi ci association bi ñoo ngi leen di talalaat loxo nag bu baax ci liggéey bi nga xam ne ne liggéeyu lislaam la